di la di kontaan trop ci ni ñu teeroo tey fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñëwoon tey euh, président de la République Bassirou may Faye ak président Ousmane Sonko son premier ministre nu yónni ñu fii tey pour ñu ñëw nemmeeku d'abord situation màggal bi seet ndax lépp mat na seet ndax prix yi baax na seet ndax lépp loo xam ne moom la jëfandikoo ci semaine màggal boobu nga xam ne tey Sénégal yëpp ñoo fiy daje ndax foo xam ne 4 million de personnes cinq millions de personnes ñoo fay daje euh, dafa nekk foo xam ne dara waru fa manqué ñu nekk ñu di ay taalibe kon tey tànk taalibe lañ fi ñëwee ñëw fi tànk ministre du gouvernement de la République Sénégal ñëw fii également pour indaale délégation boo xam ne sama cabinet muy sama secretaire général ak sama euh, ki nga xam ne mooy DAGI ak sama secrétaire d'État ki nga xam mooy yore petite et moyenne entreprise Ibrahima ak euh, ñi ñoo xam ne ñoo nekk tey di liggéey man ñoom laa àndal fii li tax ñu ñëw euh, suñu xel dal na ndax màggal bi soo xoolee daaw prix yi fi amoon laaj wax naa léegi gouverneur également ma koy gërëm ak préfet sous préfet biñ ci waxtaanee gis nañu ne prix daaw yi dafa ëppoon li ko waraloon nag mooy manque de préparation li ko waraloon mooy stockage li ko manqué woon mooy planning ñun yëg yàlla dafa def loolu mooy suñu métier ndax dara su fekkee da ngaa bëgg mu réussir da nga koy waajal te lépp loo xam ne soble la pomme de terre fruits et légumes. dafa laaj ñu stocké ko dafa laaj ñu commandé ko congelé ko dugal ko ci ay conditions yoo xam ne saa ko soxlaa di nga ko mën a génne te du yàqu loolu nag moom la ñu def ren loolu moo waral euh, biñ ko xoolee woo sef agence régulation des marché gis ne ren produit dafa teel a dugg gis ne prix yi daaw heure bi saako soble pratiquement mu woon dans les quatorze dem na ba vingt mille ren ñu ngi ci huit mille huit mille cinq cent loolu nag la ñu bëgg a continuer tous les jours incha allah dinañu fexe ba seet quantité yi soxla ak quantité fi ñëw di gërëm aussi monsieur le maire nim ñu teeroo di gërëm euh, ñëpp ñi nga xam ne moo ñooñu teeru tey euh, dinañu aussi seet li nga xam ne mooy produit yoo xam ne dañ koy wax non périssable lu mel ni diwlin lu mel ni ceeb lu mel ni suukar xam ngeen ni temps yële ubbi woon nañu marché sucre bi pour suukar bañ a manqué muy les DIPA. loolu am nañ ci xel ci xel bu rafet aussi njort bu rafet gis ne dina doy également ci màggal bi loolu moo waroon ñu ñëw pour euh, vraiment nemmeeku si ko semaine bi yëpp incha allah dina fexe ba xam information bi au jour le jour ñu xam li fi xew waaye bi mu doon waxtaan léegi ak euh, monsieur le maire euh, dama ko ne suñu yéene ci Touba dépassé na loolu ndax màggal boo xam ne c'est deux cent cinquante milliards moom mooy équivalent li ñu fiy dépensé kon ça diir dire que tey waroon nañu mën a créer li ñu wooyee zone industrielle di fi defar saabu di fi defar ay sijaada di fi defar lépp loo xam ne day dem ci li ñuy jëfandikoo ci màggal bi ndax marché bi il est déjà là te Touba c'est plus de deux millions d'habitants te dafa nar di yokk rek ndax yoonu murid la yoonu murid du wàññi ko mukk day yokk rek di yokk kon loolu euh, bëgg nañ ci tey waxtaan ak yéen waxtaan ak sëñ bi am ci ndigal pour mën ko avancer ndax zone industrielle kat foo ko def rek day créer lu tolloog cent mille emplois deux cent mille emplois trois cent mille emplois te loolu day tax Touba nekk do jóge dina zone de consommation nekk zone de production ñaar bi ñu fi bëgg a def aussi mooy si li ñu wooyee agropole agropole nag suuf su yaatu lay doon ñu fay bay noor dafa def dafa bay nawet def fa ay serre agricole ni comme ni ñu koy defee ci réewu développé yi loolu suñ ko defoon tey. pomme de terre bi ñuy def fii à Touba di ko importer yi jóge Hollande yi jóge Pout yi jóge feneen euh, ak euh, soble bi ñuy importer ak di ko jëlee foofu fépp foofu ak tomate beeg yooyu yëpp loolu ñun mu xam ne am nañu ay pexe pour def ko fii à Touba ndax am ngeen suuf si ndax Touba suuf kese moo ko wër euh, yoonu Mbacké ak yoonu Linguère ak yoonu Daaru Musti autoroute bi foofu yëpp suuf la yoo xam ne presque dara nekk fi kon loolu nekk na loo xam ne aussi bëgg nañ ci waxtaan ak yéen mu nekk suñu projet nga xam dañoo bëgg a def lu tollu 45 agropole ci biir Sénégal yëpp département bu nekk war a am su ko defee li ñu jéggaane su doon téeméer la day dem ba nekk juróom fukk ci ay feeg ñi juróomi at mën na gën a wàññeekuwaat waaye li muy gën a def mooy joxe euh, justement xëyu ndaw yi loolu moo waroon tey ñu ñëw waxtaan ceeg yéen euh, pour ngeen joxuñ ci seen i xalaat jox seen ndigal waaye loolu mooy suñu yéene loolu mooy politique gouvernement bi commencé nañ ko fële en Casamance. def nañ ko déjà à Sandiara def nañ ko à Diamniadio euh, mais suñu yéene mooy def ko fii à Touba ndax fii lañ ko gën a soxla parce que màggal bi euh, c'est une priorité boo xam ne gouvernement bi de koo teg gis incha allah le président de la République ci boppam na fi ñëwal boppam ne ko waxal ni ko noonu lañ ko waxal waaye ñun lool moo taxoon ñëw tey en tant que ndaw gouvernement bi di gërëm ñëpp di la santaak ci sa ni nga ni nga sa taxawaay di la santaat ci aussi sa ouverture keroog bi mu fi ñëwee di inaugurer supermarché lekku fii yaa ma teeru également vraiment gën ñoo encourage gën ñoo euh, ñaaxaat ci liggéey bi suñu yéene nag dépasse na foofu incha allah suñu yàlla mayee wër wër gu yaram alors loolu yëpp bëgg nañ ko fee def maa ngi lay gërëm di la sant wasalaam jërëjëf. barakatu ministre commerce Serigne Gueye Diop ñu ngi lay dellu am nuyoo bu baax a baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa. mboolem ko yaakaar Serigne Touba ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu mboolem délégation bi nga ànd bépp tàmbalee ko ci secrétaire d'État Ibrahima Thiam ak mboolem ñi nga àndal te ñu bàyyi ko ci ministère te ñëw fekk si fi ñi nga xam ne ñoo la tertu muy gouverneur de di Diourbel xam naa ñoom sonn nañ ndax fan yi bàggante bari na ci ñoom waaye seen. dëkk fi ak seen taxawaay moo tax ak préfet bu Mbàkke ñoom itam ba xaaju guddi du noppalu ndax màggat gay diise noonu ba ci sous préfet bu Ndaam ba ci sëriñ Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne mooy maire dëkk bi te gàttandu leen bàyyiwuma kenn ak sama doom yu bopp yi nga àndal di sëriñ Moustapha ak suñ Kokki Diop ak bi ñu ci des ñëpp ak suñu Omar suñu Omar Gaye Faat mi nga xam ne magam suñu Aliou ak moom mm, duñ duñ ñaari jëm kenn lañ ndax suñu Buxaari at mu jot daan gane si suñu Cheikh ci seen kër gi ñu dëkk fale ko suñu Cheikh daan dalal am na ci at moo xam ne siñ Cheikh ku xam na ne eh, am na nu ko yàlla bindoo woon ko amul dogo bi fi soxna faat ma bàyyi ko fekk ko fi waaye taxul mu dagg tukki ba daa bàyyi ba ay yitteem jeex mu ñëw waaye suñu Buxaari saa su ngan gi ma sànni agsi day bàyyi tukki bi dem ñëw ba noppi delluwaat kon ñoom samay doom lañ waaye sama lépp lañ kon ñi ngi bég bu baax di rawatina kàddu yi nga yëkkati ndax xëy na miinu li woon waaye xam nañ li nga doon ci kër gi liñ ci doon it du Mouhamadou Mountakha moo wax ma digg moom ma wax sa digg moom ba wax ma li ngeen bokk nga bëtt ko jébbalu ci moom kon danga am ci ñoom ñaari cër nga door a ñëw nag tegal teewal fii sa kilifa gile fi yónni tàmbulee ci président de la république Bassirou Diomaye Faye ñu koy ñaanal moo premier ministre mi nga xam ne moo jiite gouvernement bi yàlla suñu borom dimbali leen ba yéene yi ñu am ci réew mi ak yaakaar ji nit ñi am ci ñoom suñu borom mottali ko di rafetlu kàddu yi dégg nañ ko ndax li newoon ci suñum xel ñu bëggoon la ko wax daanaka jaar nga ci ba noppi ndax li nga wax daaw maa ngi fàttaliku ci commission màggal Tuubaa yi bi ñu def xayma yi yokk na lu bare bare bari boo la ko indi mooy li nga wax dafa produit yu moo seeroon ba nga xam ne la ci yokk bari woon na lool moo tax kon tey bu yàlla defee nga man sa yëgu ma ne wàññiku na ci maa ngi koy door dégg ci waaye kon bu wàññi ko loolu tawfeex la njariñ la ci ñëpp ndax am nañu ko man waaye am na ñu néew doole ñoo xam ne lu njëg gi bari xawee seer dana metti ñoom ndax màggal gi moom ku ne da nga koy njëkkanteeg sa morom ngir xam le ci suñ suñ Tuubaa daali woon ak pay gañ ciy séntu kon ñuy nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Sëriñ Moustapha Bachiru moom mi nga xam ne li ma ko ko waxee démb ci téléphone rek nee naa ko fépp foo teew rek danga fa siggal yoon wi ndax ci noonu lañ ko tàggate suñu Moussa Bachir xam ngeen ne kum noppi ci rek kenn du am lu mu xebe ci yow adduna ji dana mat àllaaxira ji mat pëseef mat jikko ji mat loolu nag lañ gis ci moom moo tax fu ñu mënta dem moo doon ñu fa sëkk ci teewaay yàlla def liggéey bi itam 2008 boo ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara jëye teg ko ci sama loxo boo Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy jëwriñam moo boole moom ba nëgëni mu di ko sàmm lool ci positif ak taxawaay taxawaay boo xam ne la sëñ Basiiru dénkoon waaye juróom rek lay def da ko ne woon yéen damaa tolluwut ak yéen jamono ndax dafa am lu ma Sëriñ Tuubaa digal ci biir yoon wi te yéen man ñaari kilifa laa ma ñett yow nag bu àggee ci sa jamono da ngeen di bëri ay kilifa te sa kilifa sañoo ko jubbanti wala wala nga ne ko defee nii. waaye li ma leen di digal mooy na ngeen fexe bay doxee doxee boo xam ne ñëpp dañ leen ci roy noonu nag bi ñu koy doxee ba léegi ni sàmm ko kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom dolli ak wér kàttanam ba ñu yàgg ànd liggéey bi ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ Gueye li ma doon àggale ci waxtaan bi rek mooy loolu moo wax ci wàññi njëg yi mooy li gën a gaaw ci dimbale nit ñi ndax yëkkati xaalis di ko joxe mënta daj ñëpp. te sëñ Saaliw di ci daa wax lu am solo daa wax ne daa wax ne nit kenn mënu koo jënd ndax saa soo ko jëndee nee na bu njëggee jeexee rek moomaat boppam daane joxe itam aw waar la wu yaatu wax ne kenn mënu koo bay ba ba jeexal ko ndax nee na firnde ji ji ci am mooy boo jugoon ne damay joxe nee danga xëy di joxe di joxe di joxe ba sonn nee na boo gisee sa gannaaw nag gis waar bu bari nga xam ne bàyyiwoo dara kon li ëpp solo ci dimbali nit ñi mooy fexe ba njëg yi wàññiku kon loolu dimbali ngeen ñëpp rawatina nag adduna de dox jamono di soppi ko xëy na am fu leen nit ñi di séentu mooy lépp di leer ci ñoom te loolu adduna fa toll sax ndax xëy na Sénégal tollu wutoon foofu waaye adduna toll foofu mooy nit ñi moom li ci ëpp kumpale doon waaye bu lépp dee leer ci seen bopp rek jafe-jafe doomu. kon nag wàññi googu ngeen wàññi ba mu yëg ci nit ñi kon loolu day mel ni milliards yi yoon ko wàññi woon rek day mel ni moo gën di ko yëkkatu xaalis di ko tasaare ci nit ndax boo ko tasaaree doo mën a matal te ñëpp dañu ko yëgatoo kon loolu moom xalaat bu baax la boo xam ne ñu ngi leen ci soññ bu baax ba ca sit ñaar yi ngi fi tudd dama ne woon fu ma la gisaatee ndax xëy na biñ jëkkee gisante dafa xat te déggoon naa junj yi ngi ci junj ñu la ciy soññ bu baax te nga jot li ko say kilifa ñu jàppale la ci mooy ay son industrie ci Touba loolu mooy li dëkk bi gën a soxla ndax Touba yaar rekk fi am xam naa li Serigne Touba waxoon ne wa risqu haccal atyabal xalaali fi l usri wal yusri ala tawali loolu laa waral dëkk kër dëkk la boo xam ne kër goo dugg da lekk ku demoon boo moo leel loo lekk it fu kër goo dugg lekk loolu yàlla ko fi def Sëñ Tuubaa ko ñaan borom ba may ko kon taru ko nangu mukk ñi fi nekk ñoo koy jariñoo waaye nag ñaari képp nekk ci dëkk bi mooy ay commerçant ak i tukkikat kon day mel ne li tax commerce bi dox ba nëgë ni mooy tukki ñi tukki moodu moodu yi ñoo fi bari boo ko doon xool xëy na ñooy ëpp sax commerce bi mooy tax eh, économie bi du daanu waaye bu toon loolu kon day mel ne ñëpp dañuy jaay bu ñëpp di jaay kon kenn du jënd kon loolu mooy li xaw a tolloole diggante ba économie bi méttiwut waaye lii doxalub dëkkanu mooy industrie te ku am xalaat de di xalaat sëñ Abdou Lahad Ka mi li may wax seere la ci 2014 booba président Abdoulaye Wade mooy bi mu jógee France di njëkkee ñëw ci réew mi waa Touba ñëw di ko teertu dëkk bépp xumb lool boo ko génnee ci mbedd yi man sax gé boobu maa woon sama kër waaye ku gis li génne ci dëkk bi ni mu bare sëñ Abdou Lahad Ka mii moo ñëw sama kër ma man de li nga xam ne jàngat naa ko ci dëkk bi mooy lii de boo amaatee fukki at dana doon lu kiimaane ndax li ma fa gis ci ndaw yu toll ci fukki at ak nangam bu ñaar fukki at te wóor ma ñi cëpp jàngu ñii liggéeyuñu loolu beneen dëkk bu mu bu dul Tuubaa ba tey kenn waxatu ko waaye nag dëkk bi ni ko Sëñ Tuubaa sañca dëkk bu daaral looloo waral kon saa soo xëyee da nga dégg nit ko fi faatu ndax dëkk bu ko gën a tuuti foofu am na te xam nga ne police ak gendarmerie bu dee ci norme yi ngeen natt yéen mën nga ne boo yexee sax motul vingt pour cent ci li ñu mën a aar ci dëkk bi te tout lu néew nga fi dégg li mënta ñàkk kon son industriel yi dañ ko boole ci li gën a mën a tax a dimbale nit ñi ndax nit ñi moom yëkkateb xaalis di ko jox àdduna di ko weesu la Cheikh Anta daa wax naan Sénégal danañ dem ba toll ci Euh, fer aw nax waaye fi mu toll nii fa toll kon li leen may dimbale mooy fex ba nit ñi mën am liggéey loolu nag dara jiitu ci son industrie yi lu mu gën yaatu ci dëkk bi ndax boo demee Dakar seen son industrie yu bokkutum fa te Dakar wax nañ ne Tuubaa ko ëpp population fi na comme mu ëpp population nag kon loolu war ngeen def yitte ci luñ ci war a defati Dakar rek du ma ne buñ buñ ko bàyyi ndax Dakar itam day màgg te mooy capital bi waaye na xam ne kon fu Ndakaaru jàllee Tuubaa ci war a topp. rawatina nag Touba ñoo am at yu bari yoo xam ne ba na gën a amaguñ son industriel boo ko suñu saylu di xalaat yàgg na ba na gën a sottiwut kon loolu na bokk ci yitte yi ci jiitu ba ca des mooy wàllu mbay mi nga wax mbay ku ko tudd ci senegal te waxal sa dëgg rek nga xam ne dangay ngay att ngir yàlla xam nga ne li ëpp ci baykat yi ay murid lañ kon ku bëgg a defar mbay mi yomb naa xam lool ñi nga xam ne ay baykat lañ ñooña ci seen moyens bopp la ñuy demee di bay kon ñooñu ku leen dimbalee ci ay matériel jàppale leen ci te loolu yéen état mën ngeen koo xam bu ngeen ko defee diir bu gàtt fee ñaari at ñett réew mën naa bañ a jéggaati ab mën a jég jéggaani ab dund kon ñaar moom dañ leen ci soñu ngir ngeen xam ne defalu leen siñ bi du gën ci dëkk bi ndax booy doxantu sax ci fajar rawat na guddi boo sërmalee gee doon tàll sa tànk wala nga romb ci mbedd yi nga gis nit ñi ni ñu toogee ci buntu kër yi nga xam ne amuñu xëy loolu loolu itam lu lu diis la ku am xalaat di xalaat rek dana ko day métti ci di métti kon loolu dañ la ci soññ te jàpp nañ ne niñ déggee sa xam-xam ak li nga xam def nga ko ci te nekkoo ci nguur jàpp naa ne bu dee bu demee ba nekk ci say loxo buñ la ci jàppalee mën nga ciy def résultat yu bëri bëri kon daal loolu mooy li ëpp ci kàddu yi nga xam ne. moom dañ doon nañ la ko soññ ndax wax nañ wax nañ ma ci ci ci foo nekkut ni ma bi nga nekk Côte d'Ivoire sax bañ demee ba nga ba nga bëgg a bàyyi ñoom taxaw nañ temm ci bëgg laa tey ngir sa CV loolu na kon def ko sam réew mu gën rawatina tuubaa gii nga def ko fi ngir tuubaa mooy xolub Sénégal mooy xolub Sénégal ci bind waaye mooy xolub Sénégal ci fànn yëpp boo amee jàmm fépp am jàmm mooy morsoor bi nga xam ne bu doxee lépp dox lépp dox waaye lu fa gàllankoor yi ñëpp ko yëgandoo kon ñu ngi la ci soñ bu baax a baax rawatina euh, li ma waxoon rek ndax fii moom xam nga ñu cëpp jànguñ français xëy na école daara alxuraan jàng walla école arab te ku ci jàng te amoo formation yi doo mën liggéey kon formation ak son industrie ak noo ko tuddee te mooy ci wàllu mbay mi ñett yooyu daal. xam naa ne bokk na ci li nga xam ne boo ko defee defal ngeen ñëpp te Cheikh Mouhamadou Mountakha foofu la nekk moom la kilifaam ya nekkoon rek fa la nekk mooy lépp loo jëmee ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi mu yëkkati cant ak ngërëm jëme ko ci yow ndax Sëriñ Tuubaa dañoo tere jàmbat ndax daa waxoon ne du ma yëkkatee sama loxo di ko tàllal ku dul yàlla maddu yadi li xayri sil jëlaali wax na ko fenn am na fu waxaat ne maddu yadi li xayrihi indi junoon waxaada li xayral xalaali wala futoon kon talal loxo ku dul sa yàlla si si bilaa dalaa wax naan mooy mbañum yoon wi kon nag yéen ñi nga xam ne am ngeen tawféex yi yàlla suñu boom teg leen ci bopp réew mi ta te sayyidul xawmi xaadimuhum kon loolu aw sas la wu sas wi nag néew mu sotti tey ak suba ndax ko xam adduna li muy doxe fu mën a doon bu doon bitim réew wala ñu yëkkati woon yi ngeen soxla yëpp jox leen itam bala ngeen def itit bay def liggéey ba faaw mu diire waaye nag li am solo mooy nga am lu leer ci sax xar kanam nga jug jëm ci bu àndee ko dogo rek yàlla dara ci dimbale ndax boo xoolee Sénégal réew yi mu amaloon indépendance ña ci ëpp moo leen jiite woon moo leen jiite woon waaye tey réew yooyu jiit nañ Sénégal lu bëree bëri bëri loolu na kon jàpp naa ne eh, ñaari président yi fi mujj def nañ ci liggéey muy président laa Wade ña ci jekk sax ku ci def nga la nga mën waaye Abdoulaye Wade nag. moo révolutionné Sénégal moom am na genn kilifa gu ma waxoon ne ma li ñu jàngaloon enam de bokkut li li Abdoulaye indi ci réew mi jàpp ne loolu mënta nag ba ba teg yoon wi ci bi ba kenn mënatu ko wàcc ba président Macky Sall ñëwee topp ci yoon woowu yéen nag bokk na ci seen liggéey li ci ëpp solo mooy ngeen fexe ba li ñuy liggéey ci réew mi des ci biir réew mi ndax loolu te mooy tax mu amoon njëriñ réew mi ndax lu porose yi bari bari bu fekkee lépp dafa génnaat réew mi du bari njëriñ wala waa réew mi duñ ko kon loolu rek lañ ci amaat ci xalaat loo xam ne danañ ko wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.